nañu taaral woon nañu dekkil salaf andi seen wax jafaf di ko joor tey béral bind woy daa jafe waratuñ koo kafe nañu booloo jëfe yóbbu woy fu jotul bu ñu koy sàggane bu ñu doon kom gone lu mu laaj nañ ci ne di ko joor tey doxal sunu kaw nii mu mel sunu biir nañ ko mel nañu sukkee woyal seexu naa tey doxal mu du jàkk ak waxam ne ku fi wóolum xelam naka baa kër mbërëm Seexuna lay waxal bismillah ma dekki lat xalim gi bëral ma dekki lat xalim gi béral sëriñ bi xal yoonu murit julli naa ci ahmadal amin wa ñoñam doora ngeqomaati xel yi sax ci ngëlam fomp xel yi duy ci baat yu feese xikam sekki dëgg yi sàkk usni gaa yi matul doora woy sëriñ bi tax ba ndox mi nëxul sekki dég gi sàkk usni gaa yi matul doora woy sëriñ bi tax ñu tax ci ngëlam baayu Moustapha mi seyxi ba gërëm rabbana ko def ni jant nit na lëndëm foog ma wax la moo di kan ci waati wolof door a wéy ca mbir yëpp yee wax la mbiram moo nga feeñe ñaari yéemu yéemi kemam seexi Abdullahi Lahad moo di turam xaama balsa sin murit ba moo ko ratal wax na it milaadiyam ba wax na bisam nittu fan yi topp yattu weeru kori 1914 la nee ma naxam nittu fan yi topp yattu weeru kori 1914 la nee ma naxam seyxi bamba moo di bay ba moo ko yefal soxna ma marem njaxat kilee di ndeyam seyxi bamba jàngaloon na seex ma lamin yatti fustu ngir ganam gi andi mbégam sàkku ñaan ci sayx am sa toog ma lamin ngir mu góob mbayam mi ëllëg jox ko ñañam sayxi bamba wax na sayxi am sa ganam gis na yaakaar ci moom ëllëg ci mbiram yaakaari sayxi bamba jooja tosul ndaxte ub na làmbi diina jox ko ndamam ruuj na tool bi rëj gi raado fenn desul góob na deqi jox ko gaay yi ñoo ngi dëtam ñàkk na yoon yi fo tëram yu xoos yi dandam tampe bo ngi ñu ëpp wuy si ñaadi gërëm xàll yoon yi andi ndox mi nit li lëndëm wuuf njaboot gi yiir murid yi saf ñu xorom jàngi woon na alxuraan ca neewi atam sayxi am sëtoo ko sax ba sol ko xikam kaamilam ba wenti siis la ñepp rotal jox ko mag ña ñeena bay ba am nañu xam xam-xamam mu doore féetundoo di asal xëj ji xër bi kulli fànn mos la gëlëm du bay ba seyxu Mustafa ko tuxal yut ko seyxi ab yut ko seex Habibullah mu sol ko xikam xikma farfa muuru sëy si def ko sëriñ Luqmaanu wéy na moom mu doon ni xaddis xasan yi day la boof ci ëttam taalif yi Ababakar ne wax ci xolom góoru mag la yàlla teel yiiri mbiram góoru mag la bamba teel a yiiri mbiram ngir di aar murit bi def ci bamba xolam tax nag mandi xel mi duy na fànn gune leeri xam nga nit na yoonu dam du lëndëm sant wit la wuutu say xi fallu magam wuuf si seex yi bot murit yi aari rakam doon na ba doon mag ya boo ko xamul nee ma jàkk jox ma xel ma xus ci mbiram mooy ka jom mu luy nëxal te jom di yëfam fit wa fay na gaaya daa fi def lu lëndëm fit wa tax na ñépp fit wa tax na njiitu nguur ñoŋal na cëram jom ja tax na jom ja tax ku sant mbàkke miin nga këram tab ga tax na mës la denc benn dërëm xër ga tax na kum yàkkal nga yéemi ndabam ful tax na kenn du xiiji xaaja jëfam na kenn du jiixi jaaxa jëfam fayda tax na kenn du xiili xaala waxam xel ma tax na mës la xelli luñ ne ñoŋul xam ga tax na lum rotal mu doone xikam mooy ka yaxal opitaal ca yoonu jolof boo ko xamul nda am maatu moo di turam Cheikhi Abdoulaye Lahat boo ko xamul mooy ki miire sun jumaa ji neema na xam Cheikhi Abdoulaye Lahat boo ko xamul mooy ki tabax kërug mag gi mag di mbégam Cheikhi Abdoulaye Lahat boo ko xamul mooy ki yokk it jumaa ji dolli ëttam Cheikhi Abdoulaye Lahat boo ko xamul mooy ki tabax bàqiyat di jum ci jëfam seyxi abdullahi lahat boo ko xamul moo fi def ko ruquraan gi xam nga turam seyxi abdullahi lahat boo ko xamul moo fi andi hottaruut bi fii ci dëkkam seyxi abdullahi lahat boo ko xamul moo fi andi biiri gàddi garde yëfam seyxi abdullahi lahat boo ko xamul def na fi forage ñu def na ba màndi nañ ci ndoxam seyxi abdullahi lahat boo ko xamul ñàkk caaxaan faroon na wóotu turam seyxi abdullahi lahat boo ko xamul moo di bàyyi seyxi siidi ci jalam seyxi abdullahi lahat boo ko xamul mooy ki moom mi fii ne moo di këram Cheikh Abdoulaye Lahat boo ko xamul mooy ki moome fii ñu góor ne moo di këram sallallahu alayhi woy wi neex na taaru na lool yàlla boroom kun na fay la ngeen ji payam ibnu xamis woy wi neex na taaru na lool yàlla borom kun na fay kooki topp ne ko mu bar mustaxidun ku jóg di maagal li yàlla maagal des na la maagal danañ la jiital